mbokk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 say mbir ba mu leer nañ ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa sama frère ñëw fi Moussa Diagne ku may nuyu encore de passage nekkoon euh, de directeur Dakar Midi à à cette période ñu bokk ndey ak bàyyi nekk sama seen frère respecté ma lool ne ma nag grand ma daal dem am wéy si benn booy bëggoon nga jàppale ko quoi. mu ñëw fi ànd ak papaam ñu toog waxtaan euh, c'était la première fois ma gis ko xaw ma ko woon je n'ai jamais vu approché may Tapha Tine may Omar Diagne ñu daal di waxtaan donc euh, ak abu Ndiaye Tine dama ko ñëw euh, nga nga jàppale sama sa sama doom man am problème ma jóg. moment boobu bëri na trois jeexal na boobu saison pratiquement saison bi je crois boobu jeex na. su bi mu jugee foofu prochain combat am moog Boy Seye la woon. non non non non c' est c' était bien avant après combat boobu moom Bazouka la après que moom Bazouka. avant bi ma koy jël boobu commencé parce que après combat bi mu pare ci euh, tournoi bi. bo Boy la fi daan. la fi daan après tournoi bi Boy Seye c' est bien avant tournoi je si bien souvent après après bi la après mm. donc automatiquement boobu bi écrit Bawol bi bi ma dem gis euh, samay xarit parce que armée laa woon laa nekkoon ma dem à l'ASFA gis Alexis Tabarez boxeur xam nga ko. donc voilà donc il était à l'équipe nationale il était euh, ngi dëkk fii amoo siis maa ngi koy remercier di ko nuyu de passage gis Cheikh Sadou bi Senghor ndem si yàlla si yàlla ko yàlla xar àjjana mu yoroon ko à la salle de musculation au niveau salle bi nekkoon euh, Fass mooy salle bi ñuy wax waa douane ñoo ko moomoon gis seet ku mel ni Ousmane Ndiaye yoroon ko judo nekkoon aussi en temps en équipe nationale nekk à l'ASFA donc il y avait quatre militaires autour de Tapha donc loolu Sénégal ñu bëri xamuñu ko su ma ko leeralul defe naa ne wala moom wax ko wala ñoom Alexis wax ko defe naa kenn xamu ko donc ñun ñeent ñoo ko yor tenir une réunion ak moom à l'ASFA même mu ta ma ta ñu daje fa ñu toog ñoo naa fa une réunion def fa un plan de travail pour accompagner ko donc graphique bi nga defee du tuy au jour ku si nekk am nga heur boo war liggéey ak moom ak jour bi nga liggéey ak moom bon le soir ñu bàyyi ko mu dem à son écurie mais bi biñ demee ba xam ne la commencé woon na am deux semaines trois semaines donc mu am commencé am absence au niveau de de son écurie donc absence boobu aussi ça a un peu joué ak suñu yu suñu diggante ak moom parce que xam nga mbër boo ko yoree mu toog ay jamono gisatoo ko. donc xaw ma nu booba man boobu sax ay écurie miinu ma leen c' était la première fois ma ne ko donc nañ dem ma xool nu ngeen di liggéey ma ànd ak Ousmane Ndiaye ak suñu benn cousin wu tudd Góor Ndiaye ñu ànd joxante rendez-vous ak Tapha Tine quelque part ñu ànd dem à l' écurie traversé écurie Ndakaaru bi dem seen écurie dugg xaw ma fa kenn. mais nag Diouf Diouf laa fa xamee woon parce que ñoo nekkoon pàkk ba pàkku la mbay xëy na moom xamee wu ma xamee naa ko. ak ñoom Boy Kayre ñoom Paate ñoom Serigne Ndiaye ñoo dëkkoon Pàkk Lambaay bi nekk euh, avenue président Lamine Gueye donc man xamoon naa leen parce que dama daan jóge Rubis su ma wàccee vacances falan falan nekk donc ma xam leen diggante boobu nag bi ñëwee toog ma ànd ak Ousmane donc on était xool la séance bi séance bi jeexee mu ne ma xaaral ah, ma présenté la sama coach yi ci la ma présenté ak euh, Ibra Diagne ñoom ñaar sax vraiment euh, je les remercie parce que ñoo la ba njëkk xam ci ci askanu ñu diggu ci làmb ñu toog waxtaane ko mel ne leen nag lii ak lii mu yëkkati woon mun nañu kaale mu yóbbu leen ci responsable yi ñu jóg dem seen responsable yi ce qu'ils m'ont dit xaaral ba le président ñëw le groupe bi ñëw donc bàyyi bi si numéro si si si c'est intéressant donc dañ la woo je me suis dit dans ma tête que moom xëy na peut-être ñi ils n'ont pas su man exactement lan moom andi mais un problème Malade Malade dina ko ok daay tàggoo ñoom daay dem bon je lui dis aussi ça aussi donc bul yàq sa sa sa sa environnement parce que yaa ngi ci benn écurie boo xam te nii booba souvent le matin mu ñu entraîné moom dana àndaale Birahim 2 Boy Dieye euh, Malien euh, un benn cousin bu tudd Abdou Mbaye euh, Socé Mané donc bariwul ñoon ay si faisait six ou sept la bu ñu def le travail le matin il faut mu indi équipe boo xam ne ma liggéey ñoom ñooñu voilà leen xamee. mais bi ñu paree ci loolu ci ci année boobu c'était en deux mille euh, deux mille huit hein deux mille huit man ci la ci ci fin deux mille sept fin deux mille sept bon ci lañ taxaw ci laa wax ñoom avec Alexis donc di manque le gosse commencé nañu am quelques manquements euh, retard au niveau de son économie lañ ko libéré comme ça mu continuer après saison baa ngi tëj ñu xool lu ñuy def daal di bàyyi deux mois après ñu woo dafa dafa am dafa am combat contre Bazooka boobu man fàtte naa sax li jëm ci ay préparation ay ay làmb ak yooyu dematuma ci voilà donc génn naa ci sama frère bi ñëw na ma woon il faut ñëw làmb dem ñoom seetaan yi et je me rappelle depuis bi ma bàyyi woon seetaan làmb sax depuis ay arène bi ñu ñun yàgg na ñun Mbaye Guèye gi Tafa Guèye daan naan seetaan mais toog naa presque plus de dix ans xam ne du ma presque ba ma xëy un jour rek ñu ñëw fii def une réunion. daal alors dañuy monter une écurie donc sama papa boobu ma fii la toogoon. ci la jógee Bawol di ñëw créé Bawol Mbooloo. ci la créé Bawol ci la jógee nag loolu ci la voilà. te ñoo nag bokk écurie Bawol Mbooloo. mais sa diggante ak moom euh, lan moo ko jeexal parce que ma juumul am lu bari loo xamante ni euh, def nga ko ci moom nga jékki-jékki mu am defet yaakaar naa daanaat xaw ma affaire deme demee noonu ngi jékki-jékki après ku ne toog jàpp sa njàmbur lan la woon. non ànd boo gis euh, souvent c'est comme ça parce que Tafa je l'ai connu moo nga xam moo nga xam bi nga xamante ne moom. c'était juste à cette période comme il avait des difficultés indi ma ko ma accompagné ko am quatre victoires une défaite donc souvent euh, lu ñu ko mën a wax moo di peut-être euh, cycle boo gisee jeex mais loowuñu Tapha Tine reste toujours mon fils il reste toujours mon enfant il reste toujours mon ami donc amul lenn lenn lenn lu taas suma diggante ak moom amul lu may taxal amul lu ma koy taxal. mais bu loolu jàllee noo gisee état dafa moom. nii nii ah,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 foo mën di nekk foo mën di féete jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa